dañu dajale lenn ci gor yi ci dëkk bi ne dañu leen di wax ana fu ñu war a jëme réew mi juróom-ñaari weer ñu koy xaar juróom-ñaari weer waa jiy daw di teggi juróom-ñaari weer muy dugg ci tunnel yi juróom-ñaari weer muy waaf nanguwul def déclaration de politique général tey jii lañu gaaral ca jam ñaajo nee ñu mooy projet bi projet boo xam ne dañu ko jënd te ka ñëw di ko présenter ab expert privé la expert privé boobu ci fàttali rek moo doon expert bi doon xalamal Macky Sall ci ps e. bi mu xalamalee Macky sàll ba mu jëli jàjjam sëriñam baax na tey jii gàddu na Sonko ak Jomay moom Victor Ndiaye li am solo mooy bisub tey bi ku ne xam na ne daanaka campagne électorale la parce que la xewoon foofu ca jam ñaajo ku ne xam na ne du vision waaye ab maskaraat la woon daanaka ab xumbel gu ñu organiser waaye yéen biir na leen ne plan buy soqali réew plan buy defar réew dee su ko roccee ci ay tiroiru cabinet dégg nañu ko sax muy junj di wax waxu Japon waaye ku ne xam na ne Japon ay nit ñu xam fa ñu jëm ay nit ñu gëm seen bopp

waaye li may wax rek du plan wu ñii toltolaat du plan wu mason yi du plan wu mécanicien yi du plan wu marchand ambulant yi waaye du plan wu menuisier yi plan boobu ñu gaaral tey jii plan la boo xam ne dañu ko tibbe te biir ne ñépp ñiy gëstu ne ci plan Macky Sall lañu ko copier Le plan Sénégal émergent Nous nañu sax ba ci nañu ko patch ci juroomi at ci fukki comme ay mbabba dara lañu ko soparñi sax pour degré de nullardise bi nga xamné mo nek laaj bi sénégalais yépp di laaj xam ngeen ne moo taxoon ñu yóbbu ma ci alkaati yi chiffre ya ñu ma doon laaj moom laa dellu di laajte waaw li ñu ñu présenté tey fan lañu sukkandiku bëgg naa xam ndax ci chiffre ya ñu falsifié woon te génnagul foofu lañu sukkandiku walla chiffre ya nga xam mom lañu yagg falsifier yàgg ñoy ci nee ña ñooy ca chiffre yooyu la sukkandiku la question elle est extrêmement importante et war nañ ñu ci tontu chiffre yi ñu basé wu pour jox ñu projet Sénégal 2050. ndax ci chiffre yi Cour des comptes génneegul la ñu ko tibé wala ndax ci chiffre yi Ousmane Sonko doon wax né données yi ñu njublang la. ca données yooyu lañu tibbe tibbee yaakaar naa ni duñ ñu ci gaaw a tontu mais li wóor rek mooy li ñu ñu jox tey ji ay kàddu la di kàddu làmbaatu kaddug ñu tële kaddug ñu amul vision kaddug ñoo xam ne juróom-ñett fukki sénégalais ak juróom-benn di ay jeunes sénégalais seen bakkan daanu na ci toolu xale bi ñu nekk ay martyrs lan moo taxoon ñu doon dugal seen pas-pas lan moo taxoon xale yooyu engagé wu nekk ci mbedd mi di xeex ba seen bakkan rot dañu leen digoon ne dafa am projet waaye tey ji biir na sénégalais yépp ne projet bobu ñu doon wax musul am projet bobu ñu doon wax musuñu ko bind ñeenti junni cadre yi ñu doon wax ne ñoy bind projet bi Yalla xam na ne France dalu wax ne nous waxi Ousmane Sonko jarul ne projet bi ñu présenter sénégalais yi vision Sénégal 2050. cabinet privé nous moko la preuve consultant privé présente taxaw présenté au Sénégalais yi kay de mais pour vous, Ousmane Sonko amul un pour les ne Ousmane Sonko day Si ne da un projet il ku dégg ci yéen a ñu wax ne noonu la ñu koy financer kenn may que, li ci biir document bi stratégie nationale pour 2025 ak 2029 am 18 000 milliards fukki junni milliards ak juróom nous sommes dit dañ ko war lebi Nous ñi doon nous tayji champions champion dit qu'ils ñi doon wax Ousmane Sonko son président délégué auprès du premier sinistre Nous sommes leb Ismaïla Yassine Donc, ci dix 18 milliards six mille milliards dañu ko jagleel le secteur privé national nee na mais yéen ñii biir ne société yi ñu duppee privé national duñu ay société nationale parce que bari na ci yo xamné ay nit ñu nek bitim réew ñoko mom. kon ci engagement yoyu ngeen bayyi ci xel dañu wax ne téméri sénégalais yo 70 yi djuroom nous fukk ñu ngi cham ak nap xana kon lolo yor ci plan bobu ñu présenté sénégalais nous né 18 000 milliards yañu wara lepp digënté 2025 2029 10% lañuy jaglél le secteur primaire mooy mbay sàmm akub napp dem naa sax ci biir calcul yi maanaam booy xool day nekk région bu nekk quarante 42 milliards lañ fay def ci pàcc bu nekk ci ñetti at yay ñëw kon ngeen xam ne véritablement ñi ñu jàkkaar lool ay cuune lañu dem naa sax ba gis ñu wax ay pôles territoriaux yéen ku ne ci yéen ñi xam na ne le programme TEC, novembre 2023 nous avons leen le programme TEC ko ak ay Pour yi pôle yooyu ñuy wax bokk na ci li ci programme yi parce que sommes comme dañuy randal rek pôle territoire yooyu 8 pôles yi ñuy wax ci suñu biir document le ko jéré mais comme Sénégal nous ñu tax yi dana parce que dafa sommes ci mbaxalu xeer lañu jëm fi mu nekk Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye ngeen ko présentation nous allons on va vers une subvention ou des subventions ciblées. FMI la d'accord avec Ousmane Sonko et Diomaye mooy subvention yi dañ koy dakar subvention boo ko dakkalee ci wayafal mooy wayafal bi day yokk subvention bi boo ko d'accord ci ceeb bi mooy kilo bi day yokk subvention bi d'accord ko dakkalee ci

remarqué ngeen ko sax waaye dafa am leneen lu ñu ci yokk ndox mi je vous donne l'information que day yokk parce que ci journal bu wax l'enquête su le 5 octobre bii ñu passé Maguette ñan mi jiite kërug ndox bi dafa ne njëg yi ci ndox bi danañu ko yokk

hausse yokkute bi nga xam ne def nañ ko ci njëgu ndox bi ngeen xamee ko noonu ci juróomi at yi di ñëw loolu nag mën nañu ko rectifier parce que ñii fi nekk seen poos yéen lañu yërëmul màggatum lëndëm ku ko dajul day daj boppam boroom kër buy toltolaan ku ko yërëmul day yërëm boppam gouvernement bu la yokkal ceeb yokal la diwliñ yokal la courant yokal la ndox de la bëgg ray feqatu len et le 17 novembre N'gentan tan coalition Sam sa kaddu ay jeunes yu am yeni ci réew mi ay nit ñu am parcours ay nit ñu làmbaatuwul ñoo fa nekk bëgg soppar ñi xar kanamu Sénégal indi gouvernement bu bees daggkatu juuti yi nga xamne ne boobaak léegi ñu ngi pousu ñu passu ñu yalla tegul kenn lu mu mënul nañ leen fi jële dañ ñu proposé tay ji ab document de ko bilan euh, Sénégal 2050 ñu ne le 2025 lay commencé plan bi 2025 lay commencé Wa ñetti wër yi di ñëw ñiy toltalaat ñoom nu ñuy def waaw ñetti weer yii di ñëw économie bi nga ne suux na nu ñuy def ñetti weer yii di ñëw marché yi nga ne amatul nit ñuy jënd nu ñuy def ñetti weer yii di ñëw naka la def pour dundal suñu njaboot ñetti weer yii di ñëw naka la def pour jënd fourniture gone yi parce que am na ba tey ay élèves yu jàngiwul ndax seeni seeni wayjur amuñu lu ñu leen inscrire lan la ñuy def pour loolu lañu def tey jii jam ñaajo mooy li may wax tout le temps dañu doon wax ne ñi fi nekkoon dañu doon nguuru di mos ak di mosale waaye tey jii ñi doon mos ñoo fi jóge la ñu doon mos ba tey mi ngi fi ñu bees ñi ñoom ñooy mos xaayaan ku dégg séeréer li ñu ñu wax wax nañ ñu lépp sauf wax ñu naka la relancer économie bu Sénégal tey ji yéen ñi teew fii ñëpp ku ci ne xam na ne sénégalais yi sonn na yéen ñi teew fii ñëpp ku ci nekk xam na ne borom kër yi jaaxle nañ yéen ñi teew fii ñëpp ku ci ne biir na ko ne la mu mënoon daaw mënatu ko ren loolu dara waralu ko lu ay gaa yuy ay gaay yoo xam ne tële ay Nous yoo xam ne nanguwuñu ne puusuñu parce que nag vision bii ñu def vision bi ñu Sénégal 2050, ci bor lañu ko wéer ci bor lañu ko nar a ci bor lañu ko nar a jëfe te yéen ñii ci seen poste la mon basirou diomay fay le premier ministre Ousmane Sonko ci conseil des ministres passé le 12 juin d'accord nañu ci ñetti at yi di ñew ñu dem lebi ñetti milliards ak juróom-ñetti témèr huit milliards 8 800 milliards yoyu si c'est milliards milliards yëpp ci fay bor la jëm manam sul bukki sulli bukki niñ koy la vie courante malheureusement non, loko Ousmane Sonko di défé ak Diomaye warta bett kenn en tout cas man bettuma yàgg koy wax daggkatu djouti du fessal pos et ñi encore une fois amuñu lenn ci xam-xam damay wax ci sumay waxtaan ma ne leen dafa dañu mel ni ay maanaam baaxooñ baaxoñ mooy vautour xam nga vautour medd lay dunde dañuy fekk ay entrepreneur yu liggéey ba créer richesse am dara ñu ñëw coppet ca loolu la ñuy dunde kon ma waxoon ko bantuwaat ko amuñu vision amuñu xalat buñu Sénégal et document vision Sénégal 2050 nous ñu présenté consultant bu cabinet privé Nous ak présentation bi té mu bir ay document lañu dem coller boolewuñu ci sax jéem nandite indi xam-xam rocci roof leneen mais noonu la ko bayé c'est juste pour vous informer ci sen degré ci wàllu télé ak wàllu mbabba dara dégg ngeen sa saa su ñu né waw Sénégal dañu war a def bonne gouvernance ñoom bonne gouvernance pour ñeneen ñi rek la mais ñoom bon gouvernance boolewuñ ko ñoom ci seen i mbir bonne gouvernance mën naa weesu coow li am ASER waaw wax leen ma yéen ndax bonne gouvernance mun naa weesu coow li am ONAS te tey jii directeur général ba ñu dàq dem di jàkkaarloog enquêteurs yi parce que nee na ministre moo ne ko bàyyil marché bi nga joxe jox ko ñeneen ñaari entreprise ci entente direct maanaam ndéggoog yaa ma neex mbirum Azer moom dégg naa leen xam nga comme dañu mën a fet ñu naan wuy affaire Azer ci jamonoy Macky Sall lañ ko def man nee naa leen ñoom ak Macky Sall bon la ak yées mooy sama gëm-gëm man coowu Azer dafa am solo ñu taxaw ci parce que coowu Azer banque bi nga xam ne daf ci doon liggéey muy ay sénégalais ak ay espagnol ce qu'il faut rappeler mooy seen directeur général boobu ñu fa tabb muy naka Jean Michel Michel Sen nga xamné ne mësta liggéey dara premier poste am DG la loolu Sénégal rek la premier poste ce premier bulletin de salaire DG et y en a beaucoup hein oui non parce que amuñu ressources yi amuñu ay borom xam-xam amuñu capital humain xam nga man duma bëgg di wax capital humain parce que yefi PSE seul

bi ARCOP di suspendre marché bi dafa ne banque Santander daf ko laaj ne ko 37 milliards yi ma joxe gisatuma xaalis bi xaalis bi nee na mëy kenn gisul 37 milliards waaw léegi comme waa ji fëggoon dënam naan day jubal ak jubbanti te jubuñu mais Ousmane Sonko nañu wax 37 milliards au Sénégal yooyu fu mu dem.

ci fin ou semaine passée passé dañ doon ne muy dox ci musiba jëm ak muy dox sax ah non chargé de mission ku musa xam lan chargé de mission ku xam lan mission li chargé de mission parce que ay jeunes lañu yu doon liggéey ci biir seen engagement politique ci parti PASTEF ñu ànd ak ñi doon toj ñu ànd ak ñi doon rajaxe ñu ànd ak ñi doon taal bokk ci ñiy saaga léegi saaga day dox léegi xaste day fay ñu defal leen daanaka. lu ëpp ñeent fukki contrat ci présidence de la république defal leen ay chargé de mission nga xam ne salaire nekk na ne cinq 500 000 jëm kaw ci ñoo amuñu bureau parce que ñoom ñëpp kenn du la jox bureau bir présidence de la république amuñu bureau mais ca tout loolu Mom Ousmane Sonko dafa dem créer gouvernement parallèle bir primature dafa dem recruter 21 conseils. conseillers Ils ont ku ci millions ñu fay million ak lu top weer wu bu nek ngir nga conseiller un gouvernement parallèle lolu moy djub né ñoy jubal ak sénégalais yi ku exactement lan mooy taxawaay bi nga xam ne moom la ñu doon xaar mais li wóor mooy le 17 novembre incha allah yoon bu bon bi Sénégal jël yoon boobu mën nañu sauver Sénégal mën nañu rectifier la trajectoire bi Sénégal c'est de voter massivement pour l'opposition c'est de voter pour la coalition Sam sa kàddu yow mi tok sa kër mu jafe lol. yow mi dan bëggal say dom te mënatoo tok. yow mi bëgg jënd fourniture mënatoo tok. commerçant bi nek ci marché bi te yëf yi jafe ci mom. Tak leen seen digg leen inshallah le 17 novembre prochain ñu voter massivement la coalition Sam sa kàddu ngir ñu mën fexe lii fi ne ñu jële ko fi parce que nak, Sénégal dafa tàbbi ci ay loxo yoo xam ne amuñu xam-xam tàbbi ci ay loxo yoo xam amuñu mën-mën incompétent waaye tàbbi ci ay loxo yoo xam duñu xalaat parce que ñàkk xalaat moo mom moom Ousmane Sonko jàkkaarloog àdduna te naan leen chiffres yi ñuy jëfandikoo ci suñu réew ay chiffres yu ñu falsifié la xam nga sama mam dafa dafa daan wax naan bu ñu noppee rek dañu gudurane dex gi waaye yaakaar naa ne moom it bu noppee rek dañoo gudurane géej gi li wóor mooy premier ministre Ousmane Sonko mi nga xam ne daw na déclaration de politique générale moom mi nga xam ne wane na ne am na yéene bëgg na mais malheureusement qui mom mi nga xamné mi ngi amul xam-xam Ousmane Sonko mom. lañuy lol di wax ak déclaration de politique générale And ci ak président de la république am xamné amul Kadu, wayef na signature ñu andalo ñom ñaar di yëngi yëngi xëcc sénégalais yi yobbu len ci goutte mom Ousmane Sonko moomu ak président biñu ko tafal nañu xamné ne rëcc nañu ci assemblée nationale bé passé waaye askan wi ñu ngi len di xaar ngir rëq seen digg ngir jafe-jafe yi ñu teg réew mi sénégalais yi mën koo teggil sen bop inshallah ce sera à partir du 17 novembre votez massivement kon ni ngeen ko gisee waxna ko légui c'est des mains inexpertes des incompétents des mains irréfléchis ñom ñoo yoré réew mi li baisse des recettes la seeni document la ngir kenn bañ fi ñëw wax ma ay waxu chiffre li seen ay chiffre la comme nawet bi du seen nawet ca Touba waaye chiffre yi seen chiffre ma ciy profito di leen wax ne dex gi dans la zone nord nit ñi sonn nañu diggante Bakel jaawara Mudéeri Dembankaane euh, yeggut Kidira euh, Waoundé euh, Balu Bélé Kungani, ak deuk ya wër yëpp géej gi dafa génn yegg ci dëkkuwaay nit ñi sonn nañu lool may direction de la protection civile koku général Bou nga xamné moy général bi fété Pastef légui moy ministre de l'intérieur Jean-Baptiste mom la ci waxal parce que direction de la protection civile dañu am 50 milliards à peu près yo xamné moy sen budget lan lañuy xaar pour déclencher plan Orsec lan lañuy xaar pour dem taxawu ji askan woowu nekk ci Bakel askan wa nek ci Moudéri askan wa nekk foofule ci jawara parce que nit ñi sonn nañu ca Bélé ca Balu Kungani, vraiment ils sont fatigués Mais Fateli les qui baisse des recettes qui premier semestre Hollande, deuxième trimestre 2023 et deuxième trimestre 2024 800 milliards Danaka, n'y a ci 800 milliards Khalis bi ñu doon jëlé ci salaire yi 2023 21 milliards la waaye bi ñu ñëwee ak seen jikkoy juuti song entrepreneur yi xol leen la recouvré ci 2024 11 milliards maanaam yëf yi wàcc loolu boo ko méngalee nag ak xaalis bi nga xam ne dañ ko doon yóbbu Témoin muy impôt sur le commerce extérieur à transaction dem jëndi Dubaï dem jëndi Chine dem jëndi feneen ak feneen ak fay 2023 206 milliards la woon waaye 2024 112 milliards kon nga xam ne fi ni, nekk nii ñii yore réew mi dañoo tële man Bougane na ma leen ko doon waxee ci jamonoy Macky Sall noonu laa leen koy fàttalee du wax lu nit di weddi parce que ce que c'est une est populaire. 8 800 milliards, je vous donne, tu vois le dette. C'est validé en Conseil des ministres le 12 juin 2024. Basirou Diomaye Faïmo validé le document. Regardez. C'est 8 800 milliards. 6 400 milliards, yup, tu vois le dette. Le dette. Il faut y aller. Nous, les Sénégalais, nous sommes des. Nous sommes des nous devons def ak nous euh, euh, euh, petit pois Nous devons def ak Nous def ak c'est important parce que sénégalais yi la bu sénégalais yi li ñuy dundee nañ leen ko sénégalais yi mais comment les gens vont faire pour vivre mais saaku bu deful dara mënta taxaw nit ñi pour ñu liggéey xaalis il faut ñu am lu ñu dunde nit ñi pour ñu liggéey xaalis il faut au moins ñu am loo xam ne noonu la ñuy doxale et loolu li tax ma koy wax ñëw naa ci sama benn conférence ani Soda moom léegi star la ma ne leen nenu baxal 150 lay jar mais non waa léegi xool leen xool leen tableau bi tablo bi dañ la wan ne Sénégal moo gën a cher dund ci Afrique xool leen tableau baa ngi Sénégal moo gën a cher dund ci Afrique nee naa leen man du ma wax lu ñuy weddi moom kay da ngay ñàkk xam-xam di kaañoo la ma wax mais la ma wax doo ko weddi kenn du weddi li ma wax et bon, oh, les filles, indice du coût de la vie oh, le Sénégal pouvoir d'achat local oh, le Sénégal 46 pour cent Vous avez vu ca topp waaw dund nga ak ay mi fen fen jox ne mën continuer di fen di fessel biir yi c'est pas possible et tay li xew vidéo c'est juste pour montrer à quel point les ñuy Sénégalais Je nee Victor Ndiaye bu cabinet performance la vidéo bi avons vu Victor Ndiaye Souleymane Diallo aujourd'hui Victor Ndiaye moi. exactement à mi-chemin de 2035 Victor moi Et pendant ce premier cycle de l'émergence, on l'a vu, vous avez bâti les fondements. Et c'est important, à, à l'heure du bilan, de le dire aux Sénégalais, le gros œuvre de l'émergence est aujourd'hui en place. Et ce gros œuvre, c'est la partie la plus difficile, comme toute impulsion. C'est la partie la plus coûteuse en investissement public, et c'est la partie la plus ingrate. Parce que le gros œuvre, personne ne peut y habiter. Victor grâce à votre bilan, notre pays peut aujourd'hui engager un nouveau cycle vers l'émergence. E en effet, l'émergence économique, ce n'est pas de tout faire, mais c'est de très bien faire des priorités qu'on se choisit. Ok. Wadi moi qui nous présente le projet Sonko 2050 wan leen ñu ko seetaan ngeen ko même Waji moi moo ñu présenté tey projet Sénégal horizon 2050 même, cinquante Qui ma ma ñëw kii ci topp pause pause pause Souleymane Diallo Souleymane Diallo mi, mais ci biir haut fonctionnaire yoy la bokk. Suleiman Diallo mi ci haut fonctionnaire yi doon liggéey ci administration bi la bok ana mam Thierno depuis 2014 suis directeur de la planification PSE PAP 3 li ñi PAP 3 yeen xam ngeen ko dem ngeen ci conférence yu bari manam ñetti mousquetaires yi ñom ñoo diko présenter Sénégalais yi Sonko mais xana nga soppi nit sax c'est dire même boy tu da nga wara nek un bon satch mais gars yi doon wax ñom lañ ñu la présenter les mêmes personnes ñu ak askan wi nous nous ñu jaayé PSE PSE e doxul Puzzle, pasul ñu Macky Sall fi ñu dar Ousmane Sonko ak ne ñooy dañuy présenter le projet waaye nag ku amul yaay nàmp maam comme projet amul te boobaak léegi ñu ngi ñuy dig projet at mu ne weer wu nekk ñu ne ñu tel jour projet bi dana génn ah ku indi projet bu leen ko bu leen ko dóoree rek gars yi gars yi gars yi et li ci gën a grave vous avez entendu le premier ministre Ousmane Sonko nee na ce document il est provisoire nee na document bii ñu leen présenté parewul waa mais ñii ku ñu yàpp waa mais Ousmane sunko ku mu yàpp yéen sénégalais yi lu tax Ousmane Sonko yàpp leen mais yéen sénégalais yi pourquoi Ousmane Sonko nawloowu leen mais yéen sénégalais yi pourquoi Ousmane Sonko lu mu yëkkati teg leen nga gis am na ay nit ñoo xam ne comme ay xar di darti darti Djomay, moi Djomay. cette histoire là aujourd'hui mu le la yóbbu sil xafaar mënuloo dund dund bu yegg mënuloo jaay lu jar nit ñi am nañu ay Les faju et puis nous li ci gën nous metti fait nga sama xol la jàpp bi wax ci santé len ñu ay cancer de naa nous ñu tous ay diabète mais insuffisance rénale que tu on a près 2 millions de sénégalais qui souffrent ci insuffisance rénale tu as près 2 millions de sénégalais qui ont ramené 25 centres la ñuy xëccoo fait leen ont des pèlerins nañu leen fay fait fayda nañu leen fay fait nañu fay sa et pourtant ben unité pour def traitement dialyse unité pour 30 postes la koy financé 150 millions c'est juste pour dire que nous nous jiite ci mbiri bop c'est juste pour dire que nous nous jiite li nous ñu présenté ku nek xamne ne du plan buy soqali maçon bi du plan buy soqali soudeur métallique bi du plan buy soqali mécanicien bi du plan buy soqali baykat bi waaye plan la bo xam c'est une planification centralisée ay borom costume ak cravate ño dajalo ci bureau jàpp ni nii la ñuy Sénégal mang koy wax ci walu fruit dégg ñuy wax waxu industrie pharmaceutique c'est bien c'est quand même une enveloppe de 95 milliards Bon, xam le Sénégal ne peut récupérer et pourtant xam-xam a fi et pourtant yon baa fi mais ànd ak ay nit ñu cuune dégg naa leen ñuy wax ne al amin loo sax laa dégg et foofu ànd naa ak moom parce que dafa bokk ci suma programme dama ne réew mi bu ñu leen dimbali il faut ñu nous ko ci les institutions de microfinance décentralisées les IMF et les SFD parce que les war nañ ko mën a yeggale Ils ñoom ce xam li nit ñiy dund ñoom ñoo dëkk ak nit ñi kon bu nit ñi amé jafé jafé ci ñom lañu wara mais kan moy financer suñu économie Sénégal suñu système bancaire banque yi ci Sénégal danaka 80 des banques au Sénégal ay étranger ñoo ko waaw est-ce que ay banques yu ay étranger moom xam ñun réalité est-ce que banque yu ay étranger moom dinañu financer suñu économie déedéet moo tax ci biir plan bi nga xam ne ñun dañ cee gëstu woon ñu ñaari at bu nekk danañu taxawal ñaari banque yo xamné capitaux yi c'est à c'est des euh, capitaux sénégalais lay nek à 100

c'est important boo demee Ndiandane dans le département de Podor dañ fay bay banane boo demee Gouloumbou dans le Sénégal oriental dañ fay bay banane vous demee dans le triangle bi Goudomp diguente Mangarungu Samin et Yarang Balant dañu fay bay banane banane boobu ñu fay bay

ci seen loxo la fi ne leen dig lu ñu def et je suis à l'aise d'en parler ci une émission ak dama ne leen Sonko jënd na glace ci français français fa na ci secrétaire général gouvernement le franc CFA est à améliorer jënd nañ glace génn nañ ca xam nga dafa am ay wax yoo ñen ñi du comprendre mais man japp n'a ne ay waxi dof la projection croissance ñata lañ ñu wax avons lañu projeter croissance xam nga Sénégal kañ la 6.5 6.5 2014 lañ ko Nous ñom ñuy def projection de croissance diko yobbu de 6.5 nous delo ñii delloo ñu ginnaaw la bëgg nous bëgg ñuy lekk xeer ñii dañoo bëgg toroxal ñii dañoo bëgg toroxal sénégalais yi maintenant Sénégalais. li ci c'est à votre niveau li ci des mooy secteur informel nous avons 3 500 000 entreprises individuelles 3 500 000 entreprises individuelles buñu amone gouvernement yu smart ay gouvernement yu intelligent génn nañ ci dégg naa leen ci biir document bi ñuy wax transformation li des daal mooy jël programme mu tekki rek ne léegi comme amuñu projet programme mu tekkee ngi nii def nañ ko projet bi parce que nag liggéey la boo xam ne dañ ko def ak ay nit ñoo xam ne ñu bëgg réew mi lañu

et réew boo koy defar ci souf da ngay ànd ak ñi nga xamné ñom ñoy ñooy créateur de richesse ñi nga xamné ñoy créer ay entreprise ñi nga xamné ñoy liggéey lo ay doomu aadama ñi nga xamné ño am xam-xam pour def création de richesse ñooñu ngay àndandool encadrer leen pour que ñu mëna a defar Sénégal yalla xam na ne am nañu ay nit ñu am xam-xam am nañu ay nit ñu am yéene ci réew mi waaye dafa fekk ne ku ñu boolewul ci mbir kuñu wowul ci ngenté bo fa démé bo Mangi nyanyi di nga fay ma ngi ñaan yalla yalla sam Sénégal di ñaan yalla yalla dimbali ñu té di leen wax rek né xamna né fimu nekk ni waxon na leen ko mom mi jité réew mi Ousmane Sonko dafa am ay journalistam yu koy fenal oui moom Ousmane Sonko dafa am ay agence de communication am di ay maison de presse yu nekk ci réew moom Ousmane Sonko dafa am ay influenceurs yoo xam ne ci ñuy wax muy dox la ñu bokk biir na ma ne bu suba ku ci nekk dana ratax laalo tàmbali di wax ci Bougane mais dama bëgg ñu xamné lolu defuma tarafatal ay plus ngeen di gën di wax ci man plus ma gën di leen a song plus ngeen di gën di fen plus may gën di génn di leeral tey jii woo ngeen réew mi ci ndaje bu ngeen ko defee bu jeexee 15 heures bu 17 heures ma woote bu ngeen ko defee 20 heures bu jeexee 20 heures bu 22 heures ma woote mais bii moom xam naa dama leen ñuy parce que bële dañu programmé 10 heures ma def 17 heures ñu né ñom dañuy 16 heures ma def 19 heures mais bi dama len bayyi ba ñu lancé invitation ba tay ci suba ma dal di wax sénégalais yi né la wax fofu ci ay contre vérité wax tour ci la wax fofu ci tour marto la wax fofu ngir nax sénégalais yi parce que bari na ci ñoo xamné ay fasu keuyit lañu fuñu nous yag rek ngelawaleen fa ba bari na ci lu ñew et ñooñu la ñuy waxal suma ma benn xarit économiste sànq daf ma wax ne ma ndaje mi ñu amal jam ñaajo c'est pas pour les intellectuels et je voudrais saluer Eliman Khan bu Leg Africa s'il y a une intervention pertinente s'il y a une intervention qui a véritablement retenu mon attention de par sa pertinence du fait

génne ab plan ne plan bi moy doxal Sénégal li doxal Sénégal lu ñuy mànkoo lay doon luy doxal Sénégal lu ñuy déggoo lay doon luy doxal Sénégal lu kilifa diiné yi di ñaan lay doon li doxal Sénégal day jël en considération mag ñi ndaw ñi jigéen ñi ñëpp ñi nga xamné ay forces vives de la nation lañu forces vives yoyu ñu ngi leen di wo pour le 17 inshallah la coalition Sam sa kaddu amenée par Pape jibril Fall par Tcherno Bokoum, par Anta Babacar, par Le Pur, par Détier, par Barthélémy Diaz, qui nga xam ne moom tête de liste gis voyez ko fi léegi ci ay liggéey yu ñu c'est juste pour dire ce bloc générationnel taxaw nañu pour soppi Sénégal kon yéen au Sénégal y a ci des élection yi takk leen La mhm. campagne bi na ngeen génn na ngeen wax ak nit ñi waxtaan leen ak nit ñi wax nañ leen ñu génn voter massivement pour la coalition sàmm sa kàddu maa ngi leen di gërëm jërë ngeen jëf merci